ci benn famille ñeent foofu lañ toll di ñaan mu yem fa ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken euh, ba tax na nag euh, laaj yi bari nañu lu ci mel ni euh, yëf yi fi muy commencé maanaam gaz yi fañ ko indee ba ni muy ñëwee ci kër yi Chérif ñu ngi wax naan fii ci Sénégal daanaka mbirum ay lakk nit ñuy lakk nekk na xaj na ay xayma yu doy waar booy xool ay 20 000 cas par an te ñu ne 84 pour cent ci lakk yi am daanaka ci kër yi lay nekk maanaam ay accident domestique mu nekk lu doy waar waaye yi tamit ñu war a taxaw ci mbirum prise en bi Chérif waaw waaw parce que li xew fële ci Derklé métti na trop soxna naata ginnaaw bi nu masawoo njabootu ñu ñàkkle seen seen i bakkan parce que accident domestique euh, liñ koy constaté ci réew mi bari na mais yu mu bu amee xëy na tiitaange wala panique wala sax yenn saa yi ñuy sensibiliser ci buñ amee naka lañ ko mën a doxalee ba limiter les dégâts moom mooy indi parce que gaz bu explosé yàgg nañu nekk ci kër te xamul comment naka lañ ko mën a atteindre alors que am na fi ay sapeur pompier yu fi nekk wala ñu xam ci wàllu protection civile yu mënoon yenn saa yi di sensibiliser nit ñi ci yu mel nii bu amee ban posture lan war am parce que am na ñoo xamante ne xëy na xëy nañ xëy boo xamante ñu naan tooyalal morceau dëpp ko ci gaz bi et te xëy na mën nañoo bañ a xam naka lañ koy demalee parce que quatre morts quand dafa bari loo xamante ne ajjuma la xew ba mu amee nit ñi tiit nañ tiit gaaw xamante ne dans la panique mu gën yokk li nga xamante ne moom mooy dégâts bi comme ni nga ko waxee nag ci wàllu rek prise en charge bi parce que wàllu évacuation foofu ak euh, caserne sapeur pompier bi soriwut mais témoignage yi nga xamante ne dégg nañ ko biir ñëwee pour évacuer yi ñii di blessé yi amoon ci jafe-jafe beneen bi tamit. ci wàllu ci wàllu euh, beneen itam le ministre parle xaw boo xam dañ koy ubbeeg si limite des responsabilités je pense que moment bi li gën a am solo mooy prise en charge ñi nga mm, xamante ni déjà ñi ngi ci hôpitaux yi te prise en charge boobu fii ci Sénégal jafe-jafe am na fi comme ni ko mm-hmm. médecin bi waxee ak chiffres yi parce que bu ne la par exemple cas yoo xam at mu jot dañ ci ca yu mel noonu gis nga mën naa dem ba entre cas grave yi dem ba dix pour cent yi dañuy mujj a ñàkk seen bakkan muy chiffre yoo xamante ni c'est des chiffres efara alors que am na loo xamante xewoon na fi ca daaka ba ba mu fi lakkee ci jamono mhm. le président Macky Sall daf na woon euh, centre traitement des grands brûlés doon tabax Sénégal muy loo xamante ni a bu yàgg la hôpital euh, fan bi lañ ko bëggoon def boo mhm. xoolee muy kees des dépôts de consignation nga jël ñi nga xamante ne également mooy ñëw waa Lions Club amoon nañ mhm. ci ay initiative yoo xamante ni mais mbir mi yéex na yéex goo xamante ni ba léegi sotteegut sotte goo xamante ne xëy fii ci Sénégal parce que on parle de cinq lits yoo xamante ne spécialement loolu lañ dijjee les grands brûlés parce que mhm. amoon na hôpital Dantec tëj nañ ko léegi principal moom moo fi nekk am na ay hôpitaux régionaux ngi ko tax na fa mais doyul doy goo xamante ni nin gisee chiffres yeeg fii ci Sénégal Sénégal bon biram fay mi ngi fa woon mais wàllu protection civile aussi lu baax la parce que lu nu nekk yaa ngi koy wax sànq ci réew moo xamante ni gaz. déjà ñi ngi ñi ngi dëkkandoog moom doy na waar ci dépôt yi mhm, mhm. te boo xoolee ñi koy utiliser dañuy sànni rek mhm. borom saret di ñoo koy transporter wala ñu nekk ci ay camions yoo xamante ni dañ koy dañ koy sànni di xëpp comme ni ñu xëppee ala ko ku ne xam na ni produit ba fa nekk bu kalaatee musiba naaru laay la moom lañ wax la même chose ci même les stations service yi nga xamante dañoo dëkkandoo ak moom pour éviter drame yi moom moo tax chaque fois ñi ngi alerté te boo euh, naa jur musiba boo xamante ni j'espère ci encore tirer benn leçon pour lii bañ a c'est quand même difficile métti ñu ne euh, grand brûlé yi maanaam boo ko téeméer boo ci jël juróom-ñaar fukk yi dañuy ñàkk seen bakken faute de prise en charge maanaam amul foo xam ne bu ñu fa demee dinañ leen mën a faj ba ñu xaj na ba seen bakken mën a mucc. waaw loolu moom vraiment lu tiis la ci euh, surtout incident wu lakk-lakk nit am. Mhm. lakk nag dafa metti mhm. lakk dafa metti trop trop trop trop waxuma la nag après amuloo suivi wala faj bi nga xam ne ni moom moo ci war mhm. donte centre grand brûlé bu amul ni ko médecin bi waxee ñu ngay médecin yaa ngay jéem mais dafa am loo xam ne spécialisation la mhm. matériel bu spécifique la prise en charge la su amul évidemment loolu mooy mujj ñi nga xam ne ni ñoo ci ñàkk seen bakkan ndax défaut de prise en charge mooy ëpp te loolu xëy na expérience yi fi jaar lakk Medina Daaka lakku Daaka boobu Medina Gunaas loolu rek boo ci taxawoon da nga naan plus jamais ça. plus jamais ça mooy du lakk bu mu fi amati ndax accident la mais xëy na li ciy topp moom plus jamais cest à am fu ñu toppatoowee ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy lakk. Mm. mais si incident bi li ci feeñ mooy c'est vrai. habitué wu ñu di sensibiliser ci yenn incident yu mel nii. domestique même gis nga accident de la route Sénégal accident de la route sax téeméeri nit mën nañoo teewee accident bi. duñu xam naka la ñu war a dimbalee ñi nga xam ne ñoo ci loru. premier secours yi. Mhm. premier secours. dafa am loo xam ne mu ngi ci suñu conscience populaire nga gis ñu naan may leen ko ndox xëy na nit ki nga xam ne moo accident. xëy na sax may ko ndox sax lu koy lor la parce que xamoo lu euh, bënn ci biir bi lu def leneen ak leneen c'est pas ça peut-être que li ñuy njëkk a wax mooy immobiliser mm-hmm. yenu yenu koo xam ne sax dafa accidenté xamoo fan la dammoo fan la gaañoo problème la ci niñ ko waxee ci premier secours mais loolu daf ñuy delluwaat ci amuñu culture bi mm-hmm. culture secours premier secours lakk nag moom li nit ñi xamul te ñu war koo xam aussi mooy safara bi mën naa gaañ mais fumée aussi mën naa lore. absolument boo ko boo ko inhaler boo ko noyyee. fumée bi très souvent sax incendie fumée bi mooy gën a lor parce que fumée bi mën na lor nit ba mu mu perdre connaissance. Mm. après lakk bi ñëw def li muy def mais boobaa nit ñi dañ naan dafa lakk. fekk dee na alors que xamuñu ni peut-être li mu inaale moo tax mu perdre connaissance ba peut-être safara bi fekk ko fa mm. mais lakk yu mel nii aussi parce que gëstu nañu ko lakk yu mel nii su amee nit ñi am na zone yoo xamante ni peut-être lakk bi eggu fa. tant que yaa ngi fa mën na la préserver maanaam explosion mooy comme li ñu doon wax fii keroog rek. Hmm. expert boobu doon joxe ay conseils ci tremblement de terre naan bu tremblement de terre amee da ngay yéeg suuf tab bu bu secousse bi passé nga jël say dàll parce que waroo génn sans dàll xam nga yooyu boo ci tolloo. doo ànd ak sa hmm, sago c'est vrai c'est vrai sooy expliquer nit ki hmm. aussi ni bu lakk amee. abrité wu foo xamante ni lakk ba eggu fa moo ëpp sécurité di jéem a xët safara bi pour daw. parce que di jaar ci biir safara pour xët pour daw wala nit ñi naan la daw leen génn leen. Hmm. loolu la nit ñi war a bàyyi xel la taxu la raw da lay yokkal peut nekk foo xam ne nii safara bi eggu fa bu dee ci këru étage la nekk fa safara bi eggu le temps que yi ñëw mais secours yi Derklé jëppal wax dëgg fa yàlla bu ñu toogee waxtu te secours amul. Hmm. problème la ci réew mi parce que quand même dafa jege caserne pompier boo xamante ni soriwul gis nga si ay jamono lakk mosoon na am fii ci rue 6 bi euh, mooy xale yi taalibe yi fi ñu dëkkoon voilà foofu côté boobu noonu xam nga foofu ak Malick si cinq sax matu ko hmm. mais la fa amoon yëf dafa lakk ba jeex takk te caserne bi gën a mag nekk à cinq minutes lakk na ba jeex te ñëwuñu xam nga yooyu problème la. parce que secours amoon na problème d'accès amoon na problème bouche d'incendie yi tamit nga xam ne dañ doon wax ni dañ koy euh, defaraat boobu ba léegi tamit en fait y a énormément ak sax problème mu diligence yi nga xam ne rek ñu ko ba léegi ah. parce que aussi centre de secours peut-être woote jot nit la. mais woote naan jotuma muy muy occupé loolu warul bokk ci centre de secours ak bu mën doon muy police. muy euh, pompier muy leneen ah. diligence bi nga xam ne moo war ci accueillir ñi nekk en détresse mm-hmm. gis nga soxla kenn du ko xeebal nit te jot nit rek luy dalal xel la mm-hmm. démb dama teewee accident boo xam ne ba léegi daf ma yéem te man maa ci tombé mm-hmm. imagineel biir euh, Fann Résidence soriwul dara foofu ñuy jaayee ginaar yi noonu ginaar yi ñuy lakk damay bañ wax tur bi imagineel foofu lan la fa nit war a mën a daw quartier bu mel noonu lan la fa di war a mën a daw vitesse ba mbëkkante ba oto di mboxoñ ba oto di mboxoñoo ba mokk ba chauffeuru taxi bi yàlla na yàlla ko yàlla defal jàmm waaye awma ci yaakaar ci ni ma gisee ñu génnee ko mu tëdd mais foofu dama xamul lan accident mën na faa am mais xëy na mbëkkante lay doon laalante mais foofu lan la fa oto war a mën a daw entre un camion ak taxi camion bi yóbbu ko ba ci trottoir bi tànc ko fa mboxoña ko fa Oh. mais loolu c'est-à-dire à un moment donné tu te nit ñi ban xel la ñuy demee. Hmm. parce que loolu yëpp li ko indi mooy. Hmm. li Thione sekk doon wax daw ndànk. dal ndànk am na loo xam ne dafa hmm. yenuwul maanaa. en tout cas ñi ñu leen di massawu. et puis xam nañu aussi ay ñoo xam ne xam nga Sénégal ñëpp mbokk lañu on peut le vraiment. famille mhm. Souleymane Ndéné Ndiaye la aussi koo xam ne ku ràññeeku la ci dëkk bi suñu grand Mbaye Diouf aussi ñu ngi leen di massaw mbay Diouf waaw vraiment mhm. seen grande famille leen di massaw aussi ci tiis wi nga xam ne ni eh, dal na dal na dal na seen ñaar nit wàññeeku ni ko paa bi waxee li muy wax ni ku ku ne am nga ci yëg-yëg di toppatoo ay formalité pour denc seen ñu ne lu diw tamit wàcc na xay na yaa ngi xalaat sax yeneen blessé yi nga xam ne ñoo ci nekk ñu leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex ni muy amee ci yenn incident yi bu ko jaree ñu mm. évacuer leen waaye mm. loolu rôle état la mm. un tout dernier un tout dernier mot mm-hmm. ci li ministre bi di wax enquête Chérif wax na ko mais gaz àndul ak sànni àndul ak mais gaz yi ñu exposé au soleil moom yàlla nañ ci yàlla musal. <laughs> dans un yàlla rek moom moo ñuy suturaal apparemment Cheikh Tidiane oui. ah je tout dit ah ak euh, Chérif euh, comme ni mu ko waxee rek je que sensibilisation bi am na ci solo euh, ci kër yi xam xale ni utiliser gaz am na ñoo xamee ni souvent dañuy toggee gaz sax te mënuñ ko utiliser am na ci tamit ci yenn jànq yoo xam ne aussi pareil da leen di ñëw recruter leen. te fekk mësuñ sax utiliser gaz kooku su utiliser gaz gis toog rek gis gaz bi commencé tàkk yooyu pour mu xam lan lay def pour euh, minimiser wala bañ yëf fi takk je pense que day jafe mais euh, nu mu tuddati euh, Birame Faye temps lu muy génn ci télé bari na trop maanaam ce qui veut dire que incident yi nga xamee ne wala accident yuy jur ay jee yu ci bari protection civile am ci wàll Euh, lim fi am ci 3 4 mois yi. passé dafa bari à chaque fois fii dañ ko fi jàllat. c'est ça et à chaque fois c'est le même discours nous allons situer les responsabilités euh, mais j'ai l'impression que discours la boo xam ne dañ koy calquer à chaque fois euh, il dit la même chose mais est-ce que. vraiment en amont il situe les responsabilités mhm. prévention bi ci war est-ce que ñi ngi koy def après enquête bi ci war est-ce que ñi ngi koy mhm. def pour parce que enquête moom mooy tax après nga mën a euh, sukkandiku ci loolu pour pour yow prévenir yokk sécurité et malheureusement euh, ce n'est pas souvent le cas oui euh, Ibou ci wàllum prévention bi surtout on se souvient ay jamono mhm. RTS amoon nañ ay genre capsule yu ñu daan def yoo xam ne dañ daan wax ci wàllum sécurité ci kër nii ci gàll gaz bi waaye am na yeneen danger aussi. yu ne ci kër yi muy prise électrique yeeg. Mhm. ak yeneen ak yeneen surtout xale yi. voilà donc euh, dafa dafay indiwaat rek euh, li nga xamante ne mooy accident domestique yi ñuy tudd léegi. Euh, généralement euh, niveau d'information yi dafa di loo xamante ne comme li Cheikh Tidiane wax léegi dafa des mhm. moo tax spot yooyu foog ñu ñëwaat ci récemment gisoon nañ benn vidéo boo xamante ne dañu daan wan gaz bu bu jàppee ni ngay def. donc di ko yóbbu ci école yi di ko wan xale yi. je pense que euh, ministre bi war nañ sukkandiku ci loolu bañ a xaar bi événement yu mel nii am. Mhm. loolu dafay wekku ci li nga xamante ne mooy sensibilisation. dafay wekk li nga xamante ne mooy prévention. Mhm. jéey yi euh, également dafay tax ñu gën a xoolaat li nga xamante ne mooy secours yi. Mhm. parce que chaque fois dañ koy déplorer bu yenn événement yu mel nii amee. du ñu ne du ñu du am secours mais dafay yéex mais généralement balaa ñuy déplacé wu day fekk le mal est déjà fait donc ce qui euh, remet au goût du jour également la lancinante question de de la prise en charge loolu aussi mhm. euh, réew mu toll nu Sénégal ñu ne euh, suñu hôpitaux yi tey euh, pour ñu jël en charge ñi nga xamante ne ñoom la ñuy duppee les grands brûlés mm. problème la donc loolu également faw kilifa yi gën ci taxaw parce que yaakaar naa ne fu ñu toll nii mhm. ak euh, Sénégal fu mu toll tey war nañ dépasser foofu ñu naan ay calcul lañu ñu am. Mm-hmm. et souvent loolu dafa bokk ci li nga xamante ne aussi prévention la. accident yu mel nii nag bon ñaan yàlla mu fi. bañ di am waaye bu fi amee tamit ñu am matuwaay yoo xamante ne ñi ci loru. dinañ leen mën a taxaw taxaw bu baax a baax merci beaucoup merci Ibou jërëjëf dañuy ñëw jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.